astuce de maman loolu tam ça ça ça nous intéresse nous tous ah yéen jigéen ñi nga xamante ni euh, yéenay euh, seetaan tey dañuy ñëwaat euh, ci li ñuy indi woon la dernière fois jëm ci méthode de contraception yi danger yi ak ni mu mën a def ci yaramu jigéen. alors Pape Cheikh méthode de contraception parce que neef ñëpp xam nañ ni baaxul que ce soit ci jigéen wala ci xale bi nga xamante ne moom nga njëkk am ba tax na médecins yi dañuy préconiser que jigéen yi ut ay méthodes contraceptives yu leen di permettre ñu espacer seen ay jur léegi dañ waxtaan ak madame Bigué Bambodj nekk présidente association des sages-femmes du Sénégal euh, nekk aussi sage-femme hôpital Le Dantec mu expliquer ñu semaine dernière méthode contraceptive yi lan la contraception lu muy signifier yan méthode ñoo am tey nag dafa ñuy wan euh, wax nañu aussi nan lañ koy tànnee semaine dernière tey daf ñuy expliquer naka lay fonctionner ci yaramu jigéen ak euh, jigéen yu bari dañu ragal ni bu ñu ko utiliser dafay am conséquence ci seen biir yaram ci loolu répondre na ci wax xam tout le à ces de contraception ñu xool garab bu nga xamee ni garab garab bu nga xamee ni nit dafa jël faw mën na am effet secondaire mais dañ koo saytu ba nga xamee ni bu ñu tuddee les critères d'éligibilité euh, les les bon contraceptif parce amul benn réew buy nangu ñuy indi garab ci biir dëkkam di ko jox ay nit mu di leen indil ay feebar donc dañ ko saytu ba nga xamee ne gis na ni nga xam ni tolérance bi dina baax ndax du am benn gàllankoor ci wér gu yaramu nit ki mais nag du tere mu am ay tuuti jafe-jafe donc jafe-jafe bi ma si wax moom mooy bii pikiir ñetti weer la lim ci gën a seetlu yi nga xam ne am na ñoo xam ne moo leen di tax ñu koy tànn am na ñoo xam ne mooy tax ñu koy bàyyi mooy ñàkk gis póot parce que soo ko defee comme ni ma la waxoon day bloquer règle yi parce que biir bi dootul defar règle te biir bu amul règle du mën a sotteeku parce que foofu amul lu koy tëj lu fa nekk rek yàlla dafay def dafay sotteeku donc ñenn ñi dañ koy def pour mën bañ a gis seen faute leneen li nga am ne aussi mooy yaram bi parce que yaram bi c'est selon la personne parce que am na jigéen yoo xam ne dañuy ñëw ni la defal ma piqûre bi parce que ndax dama bëgg am yaram mais boo ñëwee ñu lay seet dinañ xool ba xam ndax yow sa poids chaque fois mi ngi yokk bu fekkee dafa yokk yokk bu ëpp juróomi kilo par rapport ak na nga commencé poids ba nga amoon dañ lay daal di jàppale ni na kaay ñu soppil la nga changé beneen bii tamit boo koy def mën na la def noonu nga bañ a gis sa faute comme mën nga gis sa faute aussi des fois muy ñëw par toq-toq surtout nag juróom benn weer yu njëkk yi mais su su demee moo pikiir bi yëpp soo xasee pikiiru ko pikiiruwaat wala nga jël li diiru juróom benn weer sa yaram miin na ko euh, soit règle yi mën na ñëw normalement soit mën nga bañ a gis règle ba ba nga koy dindi mais ñàkk gis règle boobu jigéen bi xelam dina daan parce que ñun dinañ ko wax expliquer lu tax règle amul parce que biir bi defaru ko comme kuy nàmpal war a ko pour bañ ko gis Euh, appareil bi tamit amul dara lu nga xamee ni ay affaire réer yi nit ñi di ragal amu bu fekkee ni placé nañ ko normalement fa mu nekkoon heure bu dindi jotee fa lañ koy dindee mais des fois yenn jigéen ñi ñoom ñooy am dañ kumpawu di ko seetal seen bopp ba xam ndax ma nga fa ndax fil bi day nekk ci sa biir kanam te dañ la doon jàngal ni la boo paree régal raxasal sa loxo ba mu set nga jël sa benn baaraam rek dugal ko dem ba ci sa kol bi nga làmb ndax li nga daj fil bi pour firnde ni mi ngi place am mais des fois nit ñi par inadvertance dañ koy puus bu ko defee mu déplacé wu Euh, duy faral di señaloo nit regle yi day normal et puis du am du dajaloo ci biiru nit parce que jour boo naanee benn doom après da nga koy éliminer moo xam ci saw yi moo xam ci cabinet yi moo xam beneen du du du des ci sa deret moo tax chaque jour dafa laaj nga jël benn donc moom tamit des fois ñun sax lii nii des fois ñu koy jël di ko jëfandikoo pour faj jigéen ñi nga xam ne dañoo tëju parce que des fois jigéen surtout ay xale yu jigéen yu ndaw yu commencé gis fóot lu diirub ñaari at ñetti at jàpp ñeenti at ñu xam ne des fois dañuy am ay problème insuffisance euh, euh, hormonale ñoom dañ leen di faral di bindal doom yi di leen ko jox parce que dafay tax seen règle normale que bu buñu seey ñu mën a am doom donc ki nga xam ne dafay faj ku nga xam ne dafa am ay jafe-jafe règle surtout jafe-jafe am doom kon warul mën a indi benn gàllankoor ci ci boo ko jëlee jigéen lu mu sore sore dëkkuwaay ci biir Sénégal xeetu planning bu mu soxla rek jàppandi na ci wetam. Mhm. donc cherul parce que euh, ministère de la santé dafa jox ay directives maanaam dafa santaane ni njëg boo xam ne moom lañ ko war a jaay plaquette pilule ñu ne ñaar fukk lay jar piqûre bi ñenn ñi ñu ne 200 lay jar euh, kii bi euh, appareil bi wala bi ñuy def ci loxo bi muy jar téeméer. donc parce que dana bëgg que jigéen bu nekk mu mën jot ma tax ñu def ko loolu. voilà lii rek a tax waxtaan ak borom xam-xam yi am solo parce que da ci am jàngat yoo xam ne des ma ne ko lii nag moom ça veut dire que. ñëpp nañ ci accéder parce que 100 francs je pense que ministère de la santé bu ko defee c'est pour protéger euh, jigéen ñi nga xamante ñoom ñoo toll si jur wax na. lii moo tax seen émission yi am solo <laughs> am na xale yoo xam ne am doom jàngam arrêté ndax yore xale dafa metti yooyu yëpp dañ ko def yombalal leen ko def de sorte que nag biir Sénégal bi foo munti dem mm. di nga ci mun accéder pour que nga mun protéger sa bopp mm. protéger sa ay doom revenir juste ci risques yi nga xamante ne ñu bëri moom la ñuy ragal euh, te euh, am na ñoo xam ne dañu naan la bu ñuy jël euh, contraception bu ñu defee contraception du ñu du ñu gis seen règle donc loolu daf leen di tiital moo may expliquer que règle ovulation moo koy andi cest règle am te boo amul ovule doo doo am sa règle donc ça fait rien bu fekkee da nga jël yenn méthode yoo xamante ne dafay bloquer ovulation bi doo am règle comme booy nampal moo yem. Mm. donc mais comme euh, tu dis euh, bul bul bul bul dem ak sa xel rek. no non il faut toujours dem laajte obligé je pense que munoo dem sax euh, pharmacie jënd ko noonu. je mm. suis dem si ñoom pour ñu bindal la nga tànn en fait mm. boo demee ñoom dañ lay expliquer li yan méthode moo am. bu ñu la expliquer la yow nga xool ban moo la gën a convenir d'après si li nga sentir ak sa xel lan la la jox boo ko jëlee euh, chaque mois da ngay dem ñu tester xool ba xam def contrôle ba xam jëloo trop de poids parce que par exemple soo jëlee plus de 5 kilos dañuy xool ndax méthode bi nga jël est ce baax na ci yow. ñu ah, changé la na ñoo xam ne pilule daf leen di jox yaram. Mhm. Mhm. donc euh, ça dépend ci type de pilule yi mun nañ la ko changé nga testé yeneen. mais benn plaquette boobu mu ngi jar cent franc. cent franc am na beneen bi tam bu bi ma miin bi rek Norlevo xaw ma. Norlevo pour après la non déedéet du ah, bokkul boobu pour grossesse euh, indésirable. ah d' accord. voilà d' accord et Fatkine defoon na ci reportage di nekk boo ci abusé am na conséquences yu boo xam xam ne extra utérine la sa en dehors de l'utérus la grosse bi di nekkee donc Norlevo moom faut pas en abuser mieux vaut nga utiliser méthode de contraception yi avant loolu di rek dem seeti dem seeti médecin sage-femme docteur gynéco bëggoon naa juste yokk benn affaire pour technique de contraception la plupart du temps c'est pas à la personne de voir li mu li ko arrangé day dem si gynécologue mais c'est ce qu'on a dit là waaw léegi waaw attends non déedéet nelaw ma je suis bien là mais en fait fait dafa am ma bëggoon apporter en fait waaw si pour pour reprendre le train en fait euh, euh, la en la plupart du temps boo amee euh, premier enfant mhm. gynécologue yi de ne pas prendre le stérilet ah. et de plutôt prendre la pilule ou la piqûre moo tax il faut aller les voir en fait c'est obligatoire tu peux mhm. pas aujourd'hui te lever ne man bii parce que nekkoo spécialiste peut-être lan nga mën a def buñ la

te bugguma ko comme ça soit mu expliquer la que da ngay toog dina deñ wala mu changer la mais en tout cas obligatoirement dem seeti gynéco wala sage-femme yi hôpitaux yi leen gën a jege dispensaires yi ñu expliquer leen naka ngeen mën a def mu mun protéger seen bopp protéger seen doom grâce aux contraceptions parce que protéger sa doom tamit bokk na ci soreel njur gi jël temps ak sa xale bi mun na ak moom il faut nga toppatoo ko comme il faut parce que toppandoo benn xale rek dafa métti waxuma la nag nga def leen toog ak mel dëgg la de. dañ koy jeexal. ak leneen ak leneen alaaj ah, dañ cee xam ne. <laughs> alaaji xalaat yow léegi yamatoo léegi ci dugg si di léegi. léegi am nga doom joo ñuy nëbb ko. Eh. parce que da nga am une affaire bu am on parle de bébé. on parle de lait on parle de couche. non nga dugal ci sa làmmiñ. mais ñeesa gi ñeesa gi comme ñoom Adja xam nga da leen di toppatoo rek assi. kii daa mos a ñëw sa kër balaa ko jàpp. waaw samedi rek kii na ko indil na ko ndékki. laab laaw ndékki bu baax. laab moom je m'en occupe. mais voilà donc yow loo ci xam ci xale. <coughs> day gis ni may changé. am na ci xalaat de. mais kan moo seen kër amul ay. ko da ngay gëstu. may gëstu di xam. mais yéen yéen a tudd Mamadou Ndiaye. suñu rakk la. dégg nga c'est que yow sànq da nga raté lu rëy. ndax mhm. ba nga waxee noonu la ñun naka jekk ni nga wax waaye moo la ko expliqué. je sais moo tax ma koy laaj <laughs> est-ce que dafa am lu ñu nëbb boobu tu ne caches quelque chose. non dara. nëbboo dara amul benn koñ boo def dara gëj fa. tout est clair lépp leer kër yëpp laa dugg xool xale boo ci dinaa defal enquête boobu na seen mais parce que je voulais juste remercier madame Bigué Bambodj euh, très très disponible et ak ñoom am nañ benn partenariat cest chaque fois dañuy dem gis leen pour waxtaanee benn sujet ñëw teg ko pour jigéen yi mun ci jariñu et remercier aussi Tata Aïda sage-femme ndax contact bi si moom la jël ak amicale des des des femmes du Sénégal Tata Tata Mariem Fall ñoom ñëpp dinaa waxtaan ñoom ñoom ñoom dañoo ci ñoom Euh, ci thème boo xamante ne dina intéressé jigéen. te franchement tamit jigéen dafa sonn parce que bu weesoo wér gu yaramam jigéen mu ngi xool itam lu muy defaree kanamam. <laughs>